benn bis yeesu taxaw ca tefesu dexu senesaret mbooloo ma wër ko di buuxante ngir déglu kàddu yàlla gi noonu mu gis ñaari gaal yu teer ca tefes ga nappkat ya ca wàcce di raxas seeni mbaal mu dugg ci genn gaal fekk muy gu simoŋ mu ne ko mu joow ba sori tuuti noonu yeesu toog ca gaal ga di jàngal mbooloo ma bi mu jàngalee ba noppi mu ne simoŋ jowal gaal gi ba fa ndox ma gën a xóote ngeen sànni fa seeni mbaal ngir napp simoŋ tontu ko ne kilifa gi coono lanu fanaane biig te jàppunu dara waaye nag dinaa ko sànni ci sa ndigal naka lañu sànni mbaal yi jàpp jën yu bari ba mbaal yey tàmbalee xët noonu ñu daldi liyaar seeni àndandoo yi nekk ca geneen gaal ga ngir ñu ñëw dimbali leen ñooñu agsi ñu feesal ñaari gaal yi ba ñuy bëgg a suux naka la simon piyeer gis loolu daldi sukk ci kanamu yéesu ne ko sori ma borom bi ndaxte nitu bàkkaar laa wax na loolu nag ndax jën yu bari ya ñuy mbaaloon daf koo jaaxal moom ak ña mu àndaloon ak ña mu bokkaloon liggéey ba maanaam ñaari doomi sebede yi di saak ak yowaana yéesu ne simoŋ bul ragal dara gannaaw si tey ay nit ngay mbaal jëme ci man noonu ñu teer ca tefes ga bàyyi lépp di topp ci moom ni yeesu nekke ci ab dëkk am fa ku gaana ba daj bi mu gisee yeesu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 xam ni wér nga te mu nekk seede ci ñoom noonu turu yéesu di gëna siiw mbooloo mu bari di ñëw ci moom ngir déglu ko te mu faj seeni jàngoro waaye yeesu moom di beddeeku ci barab yu wéet ya di ñaan am na bés yeesu doon jàngale amoon na ca mbooloo ma teewoon ñu bokkoon ca farisiyen ya ak ay xutbakat yu jóge ca dëkk yépp ya ca galile ak ya ca yéesu àndoon na ak doole boroom bi ba muy faj ay jarag noonu ay nit ñëw jàppa basaŋ gañu tëral nit ku yaram wépp làggi ñu di ko wuta dugal ca kër ga ngir indi ko ca yéesu waaye gisuñu fu ñu koy awale ndax mbooloo ma ñu daldi yéeg ca kaw kër ga nag xeddi tiwil ya yoor waa ji ak basan ga wàcce ko ci kanama yeesu ca biir mbooloo ma bi yéesu gisee seen ngëm mu ne làggi ba sama waay baal nañu la say bàkkaar xutbakat yi ak farisiyen yi di werante ci seen xel naan kii mooy kan bay sosal yàlla ana ku mën a baale bàkkaar yi ku dul yàlla dong waaye yeesu xam seen xalaat tontu leen ne lu tax ngeen di werante ci seen xel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 mbooloo mépp waaru di màggal yàlla ñu ragal tey wax naan gis nañu tey ay mbir yu ëpp xel ginnaaw loolu yéesu génn gis ab juutikat bu tudd lewi mu toog ca juuti ba mu ne ko kaay topp ci man lewi jóg bàyyi lépp daldi ko topp noonu lewi togglu ay ñam yu bari ci këram ngir teral yéesu juutikat yu bari ak yeneen gan ñu nga fa woon di lekkandoo ak ñoom farisiyen yi ak seeni xutbakat di xultu taalibe yéesu yi ne leen lu tax ngeen di lekkandoo ak di naanandoo ak ay juutikat ak ay boroom bàkkaar yeesu tontu leen ne ñi wér soxla wu ñu fajkat ñi wéradi ñoo ko soxla ñëwuma ngir woo ñi jub waaye ngir woo bàkkaarkat yi ñu tuub seeni bàkkaar noonu ñu ne yéesu taalibe yaxe yi ak yu farisiyen yi dinañu faral di woor ak di ñaan ci yàlla waaye say taalibe ñu ngi lekk ak di naan yeesu ne leen ndax mën ngeen a woorloo gan yi ñëw ci céet li fekk boroom céet gaa ngi ànd ak ñoom waaye bis yaa ngi ñëw yuy jële boroom ceet gi ci seen biir bés yooyu nag dinañu woor te yéesu yeesu wax leen léeb wi kenn du jël mbubb mu bees xotti ci sekkit daaxe ko mbubb mu màggat lu ko mooy dina xotti mbubb mu bees mi te sekkit wi mu ci jële du ànd ak mbubb mu màggat mi te kenn du def biiñ bu bees ci mbuusi der yu màggat lu ko mooy biiñ bu bees bi day toj mbuus yi biiñ bi tuuru mbuus yi yàqu waaye dañoo war a def biiñ bu bees ci mbuus yu bees ku naan biiñ bu màggat du bëgg bu bees bi ndax day wax ne bu màggat bi baax na